Hello everyone, welcome back to Sen Sport 221, the best sport news channel. Abdou Diallo ndax avenir am nekkatul à question foofu la ca Paris Saint-Germain gannaaw arrivé wu ki nga xamante ne mooy Sergio Ramos ndax seetlu nañu ne saison yi ñu weesu wala boog ni ki daaw rek gis nañu ne Paris Saint-Germain foofu nekkoon na équipe boo xam ne xatoon na lool rawatina secteur défensif bi ki nga xamante ne mooy Abdou Diallo temps de jeu am woon bu baax baax bu ngeen di bàyyi xel li mu joué sax ci latéral gauche moo ëpp comme li mu joué comme défenseur central. li nga xamante ni sax moo ko mayoon chance moom Abdou Diallo ba mu am li nga xamante ne mooy temps de jeu boobule mooy ay blessures yi nga xamante ne xewoon na ci équipe boobu rawatina ki nga xamante ne mooy Juan Bernat bi nga xamante ni sax mën na xam ne moo nekk first choice ci li nga xamante ni mooy post boobu di latéral gos maanaam moo nekk choix bu njëkk ci coach bi bu fekkente ne daal moom wér na moom kii di Juan Bernat ñu gis ne nag daaw dafa amoon blessure bu yàgg bi nga xamante ni taxoon na ba kii di Abdou Diallo profité jool ci li nga xamante ne mooy chance boobu Euh, joué ci latéral gauche bi ay match yu bari waaye nag mu ngi ci doon awante ak ki nga xamante ne mooy Michel Bakker Michel Bakker bi nga xamante ne moom néerlandais la moom nag jamono yi kayiti xibaar yi fesal nañu ne sax moom dem na fële nga xamante ni mooy euh, ci club bi di Bayer Leverkusen kayiti xibaar yi xamle nañu ne lii nekk na loo xamante ni chance la pour kii di Abdou Diallo amaan na moom Abdou Diallo temps de jeu kon mën na bañ a wàññeeku lool gannaaw bi nga xamee si waaye Michel Bakker daal dinay dem ndax ci lundi bi ci la ñi di Bayern Leverkusen daldi officialiser transfert ki nga xamantene moy Mitchell Bakker fofu le ci Bayern Leverkusen kon Abdou Diallo gannaaw bi nga xamantene Ramos mu ngi fi Kimpembe Marquinhos ak yeneen concurrent yi nga xamantene amna ko ci melni Kerr ak yeneen joueurs yi amana mom dina am chance ngir jo ci li nga xamantene moy latéral gauche bi waye nak mu nekk comme deuxième choix bu ngi aju nak ci li nga xamantene moy côté bi waye ak lu mën xew ki nga xamantene moy Juan Bernard mom mo nekkoon fausse choice avant muy dem li nga xamantene moy injury manam bala muy gañu voilà kon noonu la demee comme ki nga xamante ne mooy Michel Bakker daal dina dem Bayer Leverkusen amaat na kii di Abdou Diallo dina am sens temps de jeu bi nga xamante ni waroon na ko manqué loolu amaat na loolu dina nekk loo xamante ne chance lay doon ci moom ngir mu war a mën a jouer ay minutes yu bari ak la boobu lee di Paris Saint-Germain buñ jógee ci loolu dañuy wax ci transfert wu ki nga xamante ni mooy Alassane Ndao moom nag kayiti xibaar yi fesal nañu ne jamono kër club yu bari koy topp moom Alassane Ndao bu ngeen fàttalikoo nag daaw saison bu rëy xamante ne Fatick Karagum Ruk dugal na ko tànkam mu ngi ci ñaar fukki bi yii moo ko dugal yi moo ko paas moom kii di Alassane Ndao ni ki saison bi nga xamante ni weesu nañu ko kayiti xibaar yi fesal nañu ne ñi di euh, Galatasaray jamono yi ñu ngi ci dossier wu kii di Alassane bëgg nañu ko signé balaa ñuy dugg ci li nga xamante ni mooy saison bi ñu dëkkmal Boubacar Kamara nekk jeune franco sénégalais di évolué ci club bi di Olympique de Marseille moom na kayiti xibaar yi xam la nañu ne jamono yi AS Monaco bëgg na dugg nañu ci li nga xamante ni mooy dossier bi ndax kat Boubacar Camara kayiti xibaar yi xam la na ñu ne benn at moo des ci contrat ak ñi di Olympique de Marseille te moom dafa lànk ne du prolongé ak club boobule kayiti xibaar yi xam la ñu ne bari na yeneen i club sax yu koy topp foofu la ca bitim réew waaye kat ñi nga xamante ñoo de AS Monaco ñoom dañoo ñëw dugg ci dossier bi ak doole ndax kayiti xibaar bi xam la ne trente millions d'euros moom la ñu teg ci taabal ji ngir war a mën a am ki nga xamante ni mooy Boubacar Camara kayiti xibaar yi fesal nañu ne jàpp nañu ne ñi di olympique de marseille duñu bañ li nga xamante ne mooy offre bi amuñu benn choix bu dul accepter li nga xamante mooy xaalis boobu ndax 30 millions d'euros moom la ñii di AS Monaco teg ci taabal ji te benn at moo des ci contrat bi te kii di Boubacar Kamara nag nekk na joueur bu am solo bi nga xamante ni bu ñu ko bàyyee foofule ba saison bi jeex te prolongé wul free transfer lay dem kenn du ko jaay moom ki nga xamante ne mooy Boubacar Kamara kon ñi nga xamante ne yooyu gannaaw bi ñu signé kat niki fan yi rek ki nga xamante ni mooy eh, kii di Ismaël Jacobs jamono yi song nañu dëcc ki nga xamante ni mooy Boubacar Camara nekk jeune franco sénégalais di évoluer foofu la ca Olympique de Marseille. daal di delloo njukkal ki nga xamante ne mooy Boulaye Dia Boulaye bi nga xamante ne ni ki démb rek la daal dem fa li nga xamante ne mooy Villarreal ci la ñu daal di officialiser transfert am foofu ni. ñoo di stade Reims dal dinañu koy ni ki démb ci talaata ji gannaaw bi moom nag moom Boulaye Dia nekk joueur boo xamante ni moo nekk sax jamono yi Eh, meilleur buteur ci li nga xamanteni moy club bobu di Stade Reims ci ñeen fukki at yi nga xamanteni wessu nañu ko limu duggal ci ay bi ci dir bu gatt bi nga xamanteni def nako fa amul benn attaque bo xamanteni def nako fa motax ñi Reims ñu ko faté dal dinañu koy delo njukal mom nak eh, comme ni ngeen ko xamé dafa dal di signé fele ci Villarreal contrat 5 ans ñu ko jëndé lu tollu ci 15 millions d'euros mom ki nga xamanteni moy Bouladia niki daw nak mu def saison bu reuy marqué lu tollu ci 16 bi ak club bi nga xamanteni moy Stade Reims Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye bi nga xamante ne jeune défenseur sénégalais la di évoluer fële ca Barcelone moom kayiti xibaar yi xam la nañu ne dal dinañu koy invité mu entraîner ak équipe B bu Barça ndax kat bu ngeen fàttale ko ki nga xamante ni mooy kii di Moussa Ndiaye mu ngi doon joué ci équipe bi nga xamante ne mooy Juvenil A muy U19 bu Barcelone mën nañu wax ne sax mooy troisième équipe bu ñii di waa FC Barcelone foofu la doon évoluer muy ñi nga xamante ne ñoo am fukki at ak juróom saison bu baax nag la def ni ki daaw kii xibaar yi xam la nañu ne ki nga xamante ne mooy entraîneur bu bees bi nga xamante ne mooy tàggat équipe B bu Barcelone Barça B moom daal dinay invité ki nga xamante ni mooy kii di musaa Ndiaye mu entraîné ak équipe boobu ndax gis na ni kat nekk na koo xamante ne ku am solo la kon jàpp nañu ne Moussa Ndiaye saison bii ñu dëkkmal dina ko def ci équipe B bu Barcelone te loolu su amee dina ko may chance bu baax a baax ngir war a mën a jouer ci li nga xamante ne mooy équipe bi ndax seetlu nañu ne léeg-léeg bu ñu amee match yoo xamante ne yu xaw a yu xaw a ndaw la léegi lay ñu yéegal ay jeunes yoo xamante ni dana leen may chance ñu jëlee ci équipe li nga xamante ne mooy équipe B bu Barcelone kon noonu la demee Moussa Ndiaye gannaaw première saison bi nga xamante def na ko ak juvenil bu Barcelone ni ki ren ji mu ngi entraîné ak équipe B bu Barcelone te jàpp nañu ne amaana dina am sance ngir jouer fa li nga xamante ne mooy saison bii ñu dëkkmal ñu fàttali leen suñu gaynde yi ndaw yi muy wala boog Lion Lion locaux yi nga xamante ne ñu ngi doon jouer fële nga xamante ni mooy ci li ñuy tuddee Cosafa Cup Euh, jamono yi moom ñoom daal dinañu jouer li nga xamante ne mooy seen troisième match dañu ko gagné nag seen diggante la woon ak Zimbabwe waaye suñu gaynde yi dañoo dal di dóor Zimbabwe 2 buts à bi sax bu ngeen xoolee dugal nañu ko képp ku ko bëgg seetaan mën nga dugg ci vidéo yi di nga ko mën a gis highlightu match boobu nga xamante ne xewoon na diggante Sénégal ak Zimbabwe kon Sénégal gannaaw bi mu ñàkkee matsam bu njëkk ci li nga xamante ne mooy tournoi boobu dal dinay gagné ñaari match yi ci topp yépp ndax démb dafa dóor Zimbabwe 2 buts à 1 bitim réew ki nga xamante ne mooy Rui Costa Rui Costa bi nga xamante ne ancien joueur portigal la nekkoon ancien joueur AC Milan Rui Costa yéen koy fàttale ko mu nekkoon numéro 10 bu AC Milan moom nag jamono yi moo nekk président bu SL Benfica Benfica bu Portugal jamono yi ki nga xamante ni mooy Rui Costa nekk ancien jour bu AC Milan moom moo nekk jamono yi président bu ñii di waa Benfica. Watford ñoom daal dina ñuy signé ki nga xamante ne mooy Peter Etebo Etebo nag moom joueur ñi di waa Nigéria la maanaam international nigérien la Etebo mii mu ngi jógee fi nga xamante ne mooy Stoke City dañu ko daal di abal ñi nga xamante ni ñoo di Watford bu ngeen fàttale ko na Watford ñoom dikki depuis ñu monté ba fii ñuy waxee toujours ñu ngi signé di ut ay renfort jàpp nañu ne kon ren ji amaana dinañu def saison bu baax Watford mooy club bu Ismaïla Sarr signé nañu ki nga xamante ni mooy Etebo jógee fële Alenia bu Barcelone moom nag ni ki daaw ñu able woon ko fi nga xamante mooy Xetafe ci 6 mois yu mujj yi moom jamono yi kayiti xam le nañu ne delluwaat na foofu nga xamante ne mooy Xetafe dañu ko dal di jaay bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi 5 millions moom la ñu ko jaay muy juróomi million képp la ñu jaay ki nga xamante mooy Carlos Alenia waaye nag mu am euh, genn wàll li nga xamante ne mooy ay droit am ñii di Barcelone ñoo ko moom maanaam 50 percent of his right ñii di ñoo ko moom jamono yi bu fekkonte woon ne jamono yi am na beneen boo xamante ni bëgg na ko signé foofu la ca ñii di bu Barcelone nanguwul ñoom duñu ko mën jaay ndax ñoom ñoo moom eh, li nga xamante ne mooy 50 pour cent ci ay droit am ñaari club yëpp dañu am pour d' accord ngir ñu war a mën a jaay kii di Carlos Alenya kon genn wàll droit yi la ñu jaay ñii di waa Xetafe jamono yi nag jour Xetafe la ndax officialisé na lañu officialisé nañu li nga xamante ne mooy transfert boobule waaye ak lu mën a xew ëllëg bu ñu ko doon jaay Barcelone ñoom moom genn wàllu droit yi moom kii di Carlos Alenya